te waa loo may ragale doo ma ñame alima mais bay daal bu fekkee ne dañoo bokk kër miinante xamante carrément jaxasoo léegi loo may ragale d' accord mais mais mais mais Melo sëriñ Dame dafa mës a wax ni bu ñu bàyyiwul euh, njaaloo bu bari beeg mooy bu bari gi dana tukkal àdduna mhm. sëñ bi njaaloo bu bari geeg mooy gi jinne yi bokkuñ ci mba j' jinne yi ndax ñu ngi mooy wala de am na ci jinne yoo xam ne ñooy solo jigéen pour muy mooy yooyu fi mu lu ci lu dara ah am la am na ji ah. am nañ leen yoo xam ne dañuy bëgg lu baax bëgg lu baax di jullee wóor bëgg lu baax waaye li leen àndal ñoom moo leen xeetal ci góor fii ak rapport ñu doon am jàmm ah. léegi nag waaw waaw dafa mooy jinne soyaati soyaati yi ah, li ma lay wax ne xam-xam la ñi koy dund danañ ko xam mais ñi ko moom duñ ko xam mais am na ci jigéen ñoo xam ne saa dañuy bëgg lu baax mais la ànd ak ñoom loolu mooy réagir mais mais foo teg ni bu ñu wàññiwul mooy gi maa ngi tukkal at maa ngi ñëw hmm. léegi nag jamono bii may waxee yow nii sëriñ daam bu ko tukki léegi bu ko tukkiwul yëpp ku ne xam na ne mi ngi ci mu ngi ci tukkanteel bi moom loolu moom ku ne xam na ko <laughs> bu nu dëgg nag laa wax. waaw góor jigéen yi jaxasoo na. ana taay mi ngi génn seen awra. pomi doy na waar yëpp yéeme na ñu ngi ci tukkanteel bi. Mhm, ñu ngi ci loolu moom ku ne xam na léegi nag bu fekkee ne sëriñ daam wax naa ak ñoom xëy na sëriñ daam tam day ñettu yàlla ndoon missionnaire. Mhm. man nag du ma ñaan kat kese am na lu ma àndal. waaw pour ñu bañ a defee ne man ab sëriñ laa nii rek buy ñaan nii rek sëriñ daam am na lu mu àndal day dogu tamit yàlla tamit am na lu mu ko jox mm-hmm. avant yàlla di ko jox dara tamit daal dëyaaleeg yàlla ba xam li mu yor mooy lan tamit ah. léegi waa léegi nag moo waral mu am pouvoir tamit bu mooy mi mun ta dakk sëriñ daam tukkil àddina bi mu jeex hmm? dégg nga wax bi maam mooy mi bu fekkee ne mënuñu koo wàññi carrément mbir mi gën a yàqu ni jamono ji gën a yàqu mu tukki mu jeex benn moom daanaka tukki na ba pare la xanaa sëñ daam da dama koy eggale rek waaye kon xam nga adduna bi moom tukki na ma. sëñ bi ni nga na yàllaa leen tiim xam ne adduna bi moom moom nañ wax dëgg yaay waxoon maam borom xam-xam yi luñ waxoon. ulamaay mboolem luñ waxoon. ñu koy gis excellent fii ma ne. laaj nga lu am. ba xam jinne day mooy yàlla. waaw day mooy. jinne day mooy mais jinne bu bëggee mooy day soppaliku nekk nit wala day moyee ci melokaanu jinne oh, waa jinne waaw ah. ah, jinne sayaatiin yi moom dane dane mooy waaw di amee far dañuy am melokaanu nit waa di di amee far ci jinne yi waa di mooy comme ni doomu doomu aadama rek doomu aadama tamit am na ñoom dañu seeni far siyaareen teg sa far ba soxol seet waaw waaw <laughs> siyaareen ah, daan na yàlla jéggal na Eh, waaye ndaw léegi nag noonu mu amee ci doomu aadama rek noonu la. amee ci jinne yi noonu rek ci jinne yi. mais lan mooy seen différence ah? Ah. laaj ma lan mooy seen différence. gaaw gi jinne gaaw. ak gis gi ma gis li ci kanamam. gaaw gi mu gaaw. ak ah. gis gi ma gis li ci kanam ak sewaay bi. melokaan bi kese mais yor nay loxoom ak yore bëtam ak. mais portrait jinne nan la jinne nu mu mel. ah dama ne kenn melu doomu aadama mais daa xaw a sew. day am loxo. waaw day am loxo day am loxo. am tànk waaw day am tànk tamit. tànk bi nag daa daa xaw a du gudd. Ah. tànk bi daa xaw a gudd tuuti rek. ba pare sew. d'accord day sew xalima ba pare dafa sew waaw. dafa dafa sew. ba pare sew léegi nag jëmmi jinne nag ci jëmmi boppam nag moom daa sew. d'accord moom rëyut am yaram nii. jinne du rëy rëyut daa sew. d'accord noonu tamit la gaawee. d'accord sëñ daam mën naa toog fii Sen TV di waxtaan. yónnee ko Touba ci 15 minutes. alors. xam nga loolu yéeme na. Touba jinne ji dem ñëw 15 minutes. 15 minutes Touba ni mu sore. dafa gaaw ba pare tamit noonu la xam ay information tey jii boo woowee sëriñ daam am loo bëgg a leerlu sëriñ daam ne la aja ñan jaar ci yoon yi nga jaar ak sëriñ ci yoon wi jinne bi carrément day wax sëriñ daam li ci mu nit ki. maanaam nag lam passé moom xamu ci dara. danaan la melo mi. Eh, eh, eh, melo man waaw waaw waaw exemple la bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko. Cheikh ko gën a jege. waaw bàyyi ko sëñ bi. Cheikh Anta melo bu la wooyee tey. waaw bëgg nga xoolal ko waaw mbaa bëgg nga liggéeyal ko man na maa wax jinne ji danaan la meloo bi li ci kanamam lii ak lii ak lii ak lii mën na ko bu ma neexee mën na ko téye leen mu téye leen bi jinne bi informé ma koy informé léegi yow li ci ginnaaw nag li ci ginnaaw nag borom may ci nga koy xam li ginnaaw nag moom man sama jëm bopp man sa daam may téye kurus bu ma bëggee leeral kii xam-xam bu leer naan ñi moom wax ko xam-xam man may téyel sama koo wax li mu passé wax ko li ci kanamam wax ko li ci ginnaaw wax ko li muy dund loolu xam-xam la te yoruma peetaaw yoruma suuf leer na looy seetee doo peetaaw man du ma peetaaw. peetaaw daa araam tam suuf suuf. peetaaw daa araam bala ngaa yeggal. daa araam. ñeent fukki guddi loo boo boo demee boo demee def ko peetaaw. Ah. ñeent fukki guddi loo ci ñaan yàlla yàlla da lay wan. nga moo ne maa ngi bëgg a invité peetaawkat yi. yaa ngi dégg li may wax nii. xam-xam laa lay wax nii déglu ma baax maam xam nga yàlla yaa ngi ko yaakaara penku. waaw yaa ngi kàbbar ma nga soow ngir mere la. leer ah, ndax peetaaw yi. peetaaw yi ngay jëfandikoo baaxul. yow nan ngay seetee. ñun turu yàlla lan yor. kurus turu yàlla lan yor léegi nag. treize heures treize heures kon léegi kon léegi Alima léegi lan moo waral kon nit bëgg maa tëkkaleeg. Euh, du nit kese lan moo waral kon nag doomu aadama ñu sëñ daam bu génnee si média ñu bëgg koo keneen ki génn si média la tax loolu te bokkuñu ay ngëm-ngëm bokkuñu ay xam-xam bokkuñu ay fit bokkuñu ay ngëm-ngëm dëgg bokkuñu ay yëg-yëg mhm. leer dégg naa dëgg dégg naa ah, dëgg kon sëriñ daam ñu ber ko nale ber ko ne la bañ koo tëkkaleeg benn. sëñ daam c'est un être spécial. leer voilà léegi nag 13h29 euh, jot na. Mhm. Euh, gis naa ci live bi am ñu bëri ñu naan la sëñ bi baalal mag ji bu ko bu ko def dara. donc euh, internautes yi ñu bari ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñaan njëkk. man sama xol dara di la wax pour nga baal ko. mais bon dañu lay bàyyi nga noppalu un tout un tout petit peu tuuti rek. Mhm. ñu dem service commercial fàttali partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy ñoom ñoom ñoo ñuy gunge bu ñu mhm. dellu see dinañ ñëw ci na ci la xew Kaolack Euh, loolu bokk na defe naa ni ci li ngay wax ci tukkalum àdduna bi bokk na dinañu wax ci la xew Kaolack ci actualité bi waaye dinañ wax tam ci li ñu dëgmal ci mhm. euh, politique bi ak yooyu noonu yëpp mhm. euh, laaj laaj ko laaju téléspectateurs yi ak auditeurs yi am ànd nañu ak Samsung mi nga xamee ne moo ñu indil euh, promo bi jëm le 17 novembre promo euh, ñu mën la rembourser ba cinq pour cent ci sa njëgu téléphone. Mhm. téléphone yi ci bokk nag moo di A14 A24 A34 A54 ak S23 S23 plus S23 ultra bokk na ci itam. Euh, à à 04 à 04S ak à 04E e. téléphone yii ma lim bu ngeen ko jëndee ci suñu revendeur agréé Samsung yëpp yi nekk ci Sénégal ñu euh, da ngeen koy daal di enregistré li ngay def mooy bind enregistré def étoile def sa numéro email def dièse yónnee ko au 22 023 ci saa si yow itam da ngay daal di bokk ci promo bi mën nañu laa remboursé dalee ko ñetti junni ba ci cent mille francs CFA euh, ci li nga jëndee téléphone bi profitoo leen ndax pom yi le 17 novembre lay jeex incha allah. Mm-hmm. Melo ana waa ji. anam. Euh, wala kan ko indi Cheikh ñu wax ci ànd nañu ak Harmonia moo nekk noonu Harmonia moo ñu fekk ci tilim mu yóbbu ñu set ak xet gu neex raxas ndab moo ci mën ndaxte jeeg ji moom la ñu taamu seen i kër pour def seen ay fobee rek seen ay nettoyant ak lépp lu mu mën a doon ci biir kër gi gannaaw euh, détergent bi am nañu eau de javel am nañu nettoyant meuble nettoyant vitre am nañu gel antiseptique am nañu lave-mains waaye itam am nañ euh, désodorisant bi nga xamante ni moom mooy dàq xet gu naqari di dugal xet gu neex Harmonia nag mën ngeen ko fekk ci boutique yi ci grande surface yi ci supérette yi fépp foo dugg rek di nga fekk Harmonia ànd itam ak euh, fromage la vache fromage bi gën a neex nga xamee ni neex baax te sell moo tax mu yàgg ak ñun def na ak ñun cent ans euh, groupe benn moo ko indil fromage bi daa fees dell ak vitamine moom fromage la vache qui rit am na vitamine A am na zinc am na fer am na iode xam ngeen ni dafa baax day dëgëral yàqu xale waaye itam dafay baax euh, ci xelum xale yi tubaarkàlla daf koy yàggal baax na itam ci mag ñi mun na ànd ak pat moom fromage la vache qui waaye mun na ànd itam yi mën na ànd ak mburu ak lépp loo xam ne bëgg nga ko boole fromage bi ak vache qui rit am nañu nag saveur yu yu ñu leen indil mu di saveur emmental indil nañu leen tam euh, bi nga xamee ni moo di extra crème waaye indil nañu leen tam fromage rouge yooyu yëpp dañ ko euh, yaatal ci njabootu fromage la vache qui rit la bokk mën ngeen ko am ci boutique yi euh, ci grande mën ci dem di ngeen am fromage la vache qui rit fii nag ci Zik FM Sen TV rajo Télé Cadeau dañ fi maye bu ngeen ñu woowee maa ngeen aimé ñu may leen ay pack fromage la vache kii li moom ngeen gis noonu ceebu sëñ daam ak melo. Mhm. bu ko defee ñu euh, teelale leen ko. Cheikh Anta keneen ko ñu jox wax ci. fi léegi nii borom euh, euh, forfait yi. Mhm. tawféex am solo la ñu ne am nañ tawféex jour bi nga xam ne 500 francs la boo ko activé ci dièse cinq dièse mbaa sa application MyFree da ngay daal di am 100 minutes d' appel tout réseau te ci itam am 50 minutes vers fii am nañu beneen tawféex boo xam ne semaine la mu ngi toll ci 1000 francs CFA mu ngeen di seen noonu. boo ko activé ci dièse 155 dièse da ngay daal di am euh, réseau ak 120 mhm. na ñuy doon mois boo xamee ni 2000 francs la maanaam ñetti téeméer boo ko activé ci dièse 155 dièse application my free da ngay am 600 minutes d' appel tout réseau ak na ñu taw xam ne moom itam junni la maanaam 5000 francs boo ko activé ci dièse 155 dièse mbaa sa application my free. da ngay am 1800 minutes d' appel tout réseau ak 600 minutes vingt free loolu un mois nga koy am teg euh, ci tam free bu la mayee bu la bokk la ñi lay may di lay am. da lay bàyyi nga woote fu la neex. Mm-hmm. woote bu la neex. tuures la lay may. donc profité leen ngeen activé yéen itam seen i mm-hmm. uh, nga xam ni moo ne parier et gagner boo bëggee nag parier mën a gagner li ngay def rek mooy nga télécharger application bi sur uh, Play Store wala Apple Store bu ko defee nga mën a tenter.